الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي بخفي اللطف وفي مون وعيب الدهر ما آفاته الكدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابه الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر المختار العظيم اللهم صل على سيدنا ولق والخاتم لما سبق من حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المختار العظيم اللهم صل على سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اليوم ak kontanteem ci bésu tey bi ak ci xale yi nga xam ne seen dogu ak seen bëgg ak seen sóobu moo tax ñu amal seen bésu tey bii biñ ko amalee ngir fasante gën a dëgëral seen diggante ak seen diine ñu tànn ci seen jotaay bi benn mawdo boo xam ne benn sujet boo xam ne dëgg-dëgg tànn ko ci jamono bi waxtaanee ko mooy tànn bu am ci jamono bii nga xam ne nekk yu bari yu bari yu bëri yi nga xam ne muur na diggante nit ak xolam muur na sax diggante nit ak boppam nga mun cee fàttaliku ba tànn loo xam ne daf lay fàttali waxuma la sa bopp rek waaye mu ngi lay fàttali sa digganteek sa borom mu ngi lay fàttali sa digganteeg sa mbooleem li nga xam ne mu ngi la war ci sa biir àddina bi nga tànn ko oo ci borom xam-xam bu yem ne ba pour mu leerala la ci loolu dégg dégg rajo Abdoulaye nee na pour moom tànn bu mag la ak tànn bu am tawfiq la mu ngi leen ciy gërëm mu ngi leen ciy nun te tànn tasawuf fil islaam tànn oustaz Ibrahim Diop bu waxtaan ci loolu itam beneen tànn la boo xam ne am na tawfiq ndax oustaz ibrahim diop mi nar a waxtaan ak ñun tasawuf fi islam oustaz ibrahim diop boobu mooy kan oustaz ibrahim diop kenn gënu ma leen ma leen wax waxtaan ma leen a dolli ci ñoom xam cheikh ibrahim ñaas te jógewul ci cheikh ibrahim nias cheikh ibrahim nias boobu mooy borom faydatu tijaniya bi nga xam ne yépp mu ngi ko taxawal ci tasawuf al islami bon buñ ooyee ku xamee noonu nga xam ne mooy sëriñam ba pare gërëm ko nangul ko xam-xam ngeen aw ko mu waxtaan ak yéen defe naa tey seen tànn am na tawfiq oustaz Ibrahima Diop boobu nekkoon élève Cheikh Ibrahima mu jàngal ko ba gërëm ko moo mujj nekk secrétaire particulier waaye sax du secrétaire particulier rek MC waaye mooy nit ki nga xam ne lépp loo xam ne aju na ci xam-xam ci jamonoom moom la ko dénkoon ñun ñii temps bi ñuy dem Égypte bi njëkk a jàngee xam nañ lan lañ oustaz Ibrahima Diop def ci loolu pour ñu mën koo def oustaz Ibrahima Diop boobu gannaaw loolu mooy kan oustaz Ibrahima Diop moo doon nit koo xam ne nekk na professeur 1964 1965 ba 1966 ci ideological of Kwame Nkrumah ca Winneba muy daloo xam ne lu muy jàngale mooy aqida ak ay diine ak lu ci aju rek. jàngale na fa ñaari at yoo xam ne man bokkoon na ci ay Njóob gannaaw loolu mooy ki ngeen xam ci àddina xam-xam ci fu nekk ci alamul arab yi membre académie la membre association islamique mondiale yi xew ci àddina bi yëpp rabitatul alamul islam yi conférence la boo xam ne fu nekk dañ koy invité ci àddina muy wax ci xam-xam ba li ci gën a mujj léegi mooy président de secrétaire général bu ulamaa wu al euh, Sénégal al Maghrib liggéey na ci biir jamonoom ci jàngam ñam bokkatoon jàng yépp góorgóorlu na ba nga xam ne kenn rawu ko ca wala bu doon rawu tam kenn rawu ko ca góorgóorlu na ba nga xam ne li jamono laaj ji jamono tey jii laaj pour liggéeyale ko lislaam góorgóorlu itam ba nga xam ne am na ci cër boo xam ne cër bu lëw la muy ci xam-xam muy ci place yoo xam ne mën nga cee yëngatu pour liggéeyal xam-xam bon buñ tànnee oustaz Ibrahima Diop ci bisu tey bi pour mu waxtaanal ci li nga xam ne moom rek la xam ci tasawuful islam yi defe naa incha allah tey suñu xol dina sedd te defe naa incha allah tey suñu nopp dina fees bon dañu eh, jox oustaz yàlla boole ci ñi nga xam ne يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن شرح الله صدره الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مبكي موي أوتوريتي autorité موي bi في تاو muy président science bi professeur Mahdi Ibrahim Niass muy mbokku jullit étudiants yi fi nekk te bokk ci yeneen association c'est très beau ñu tuddee euh, daayira ak mbokk yi góor ak jigéen yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. القرآن تموي سن لب الحمد لله أمنا فموي فتي الله دي ووي ننتبي عليه الصلاة والسلام نكو يا أيها النبي يا أيها تي أراب تستطفن يوجوك تيميتي وحين أراب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال نكو أي يو يننت بيم يون دخلكو سمب ديغنتي ميلي في تفوني ما فتاو موي ندبل وحيو du wax mukk ci banexam lu wax wax yi la yow yonent bi man yàlla maa la yebal def la ngay nabiyan rasulan mu mu mu mu ko melo yi ne ko shahidan yaay témoin bi nga xamne yow lay déglu mubashiran nga fu way di jaar mu baax ak la muy jur ci diine wax nga ko naziran nga ku jàdd mbaa nga lajj mbaa nga dellu gannaaw mbaa nga kooj la ca nekk wax nga ko ci ay conséquences wa daaiyan ila llahi te yow laa def ngay woote woo mbindéef yépp am ñu nangu am ñu bañ jëmme leen ci allah mais nag bi isni yi ci ndigalu allah moo bu jar a retenir la ndaxte yow nabiyu maa la yónni ngay shaahid di bashir di nazir di woote jëme ci yàlla li tax mu tekki bi isnihi daf may fàttali suufiya li ñuy wax ne assirru yasri al isni ñu ne daal mbóot ak ndigal ñooy ànd mooy différence kuy taj taji ak kuñ teg ci lu wér yonent boobu nag alayhi salaam lépp lu ñuy wax ci diine muy tasawuf mii ngeen di laajte ndax nécessité la ci lislaam wala déet muy lu mun di doon soo buggee xam wér na wala foo seetal ak rapport am ak yonente boobu alayhi salaatu wasalaam ci bu ñuy commencé ci alif baataa dafa war a leer naññ tasawuf ndem wér na amul benn kër lu may benn mooy daairatul islaam su lislaam amutoon tasawuf du am tariqa yi mujj judd ci biir tasawuf am ci yu amul morom am ci yu taq suuf il faut ñoom itam ci biir daayira tasawuf rek lañ mën a nekk kon nag bu lislaam amutoon li ngeen wax soufisme du am bu soufisme amutoon li ngeen di wax tariqa du am kon nag lislaam moo ñu tax a jóg ku ko xamutoon jéem koo xam ku ko xamoon dolli koo xam ku ko xam jéem koo appliquer muy ngir yi muy su fekkee ne jurul ñu gën a jege lislaam et ensuite gën a jege yàlla xamuñ am na njëriñam bi loolu moo tax xëy na lii may wax ci du doon lu orthodoxe c'est parce que mënoon naa ko tëggee tëgginu conférence mais damay joxoñ lañu tax a jóg door a seet ñuy jéem ba jéem faa dem et lii xale yi wax ne dañu ma sant waxtaan wi fekk ma xat lool waaye mën nangu ko lool awma ci benn nguura mus naa déglu 1960 déjà ca feetu junni ak téeméeri atu université Qarawiyyin benn professeur bu nekkoon à l'époque recteur université bu nekkoon ca administratif ci benn région siiw ñu koy wax docteur Souleymane Fouzayin muy waxtaan conférence bu mu intitulé woon aljaamiaat maaniu jaan maanaam les universités comme ni ngay defee benn usine dugal bant mu ngeen ni chaise nga dugal weñ mu ngeen ni nangam université noonu lay war a tëggee ni dina ko tëgg mu génn amul morom dina ko tëgg mu génn fàtte boppam alors ba muy wax nag la ma ci retenir dañu ko présenté bu pare mu ne gis ngeen fi ma jaar ñu ra ah, mu ne su ma yeggee fi ma yegg dama xalaat ne chance yu bari lañ daje lañ dajale jox ma ko ma door a yegg foofu kon nag en revanche nee na moom moom moom dara du ngor gi lu mooy ma def la maximum possible pour jox le plus grand nombre possible kon nag ku ñu yar jéem la yare ku ñu may jéem may ku ñu xamal jéem la xamle ku ñu yee jéem a yeete lii moo jotale lislaam ci ñun lii moom lañ ko war a def ba mu yegg ci ñeneen yaa mu muddassiru qum yaa mu muzammilu qum Cheikh Ibrahim Abdoulaye Niass bàyyi nee na ba yonent jotee wax yu ga te miinutoon loolu ndax ummi yu la mënul bind mënul jàng dafa dem sàngu yàlla ne ko jógal lii nga jot ku ko jot dootuloo sàngu da nga koy communiquer nit ñi ndax tey yow kenn rek laay déglu ba tax moom sax mu génn naan nit ñi yéen ñëppay dem aljanna lu mooy ko bañ ñu ne ko man yaaba mu ne man ataani daxala aljannata wa man asaani ku ma topp rek dem aljanna ku ma mooy nag yaa bañ aljanna ba mu ba mu muree ko ba ni génn àddina musul noppalu mbooleem nag ñi ko jël flambeau bi moo xam mu tuuti moo xam mu rëy moo xam mu siiw moo xam mu nëbbu bañ a siiw ku ci nekk daj nga lu mburu dajul ci taal ki ma ci gën a xam ne ci jamono mooy ki ngeen doon junj léegi Cheikh Ibrahima Abdoulaye Niass Baye Niass bi ma tarbiya maanaam bi ma jàngal yar ma bu firiyaan alxuraan ba egg ci fa ida faragta fansab ci suratu alam nashrah euh, dafa koy yaatal di wax ne fa ida faragta min al ibadat fansab fi al aadat ida faragta في, في, في, في الإفراديات فانصب في الجماعيات إذا فرقت إذا فرقت في ذا فانصب في ذا nee na loo jógee rek ba foog ne jaaxaan a def xoolal la ca topp nga continuer ko boo jógee ci jaamu yàlla demal ci aada boo jógee ci sa mbir bopp jëmal ci mbir mbooloo boo jógee noppalu noflaay bi du fii pour jullit noflaay bi fële la yow ma yaqumu naasu rabbi alamina yàlla xool la gërëm la nga jaaxaan la loolu nag moo ma foog ne suñu baykat ñambi ci biir du wax univers ñu dem rawatina nag ay jeunes yu université fabrique des hommes nga xam ne fii la former cadre yi fii la tubaab yi daan préparer nit ñi pour ñu sànku fàtte yàlla fàtte seen réew fii pour fàttaliku seen bopp fàttaliku yàlla fàttaliku seen réew war nañoo ñëw ñun ñoo leen war a gërëm yéen waru leen ñëw gërëm mu ne ko yaay woote jëmee ci yàlla yaay lumière bi yaay jant bi yaay weer bi kon nag nuyu naa leen yéen ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxtaan wi nag mooy ndax li ñuy wax soufisme ndax nécessité la ci l'islam wala déet maanaam même ñëpp d'accorduñ ci nuñ koy waxee sax ci tubaab ñu français muy soufisme am na ñoo xam ne dañ koy gën a tubaabee ne la mystique musulman am na ñuy wax ne l'initiation comme René Guénon loolu tànn nee na wala ésotourisme islamique wala wala kon nag loolu olof yi di tuddee sufiyanke ndax nit mën na nekk jullit te doo ko faale wala mënul ñàkk ci dundu jullit laaj bi defe naa ne il faut ñu développer waxtaan wi ba ca fin ba ku ne mun nga tontul sa bopp mais boo doon laaj koo xam ne wóolu nga ko te nekkoon ci mbooloo mën na la tontu benn baat waaw wala déet mu jeex mais taxul ñu dajale mbooloo mi kon nag li ñuy wax ak tasawuf te ngeen tëggee ko soufisme bu ñu waxtaanee ba ci kanam mun nañ seet ba xam ndax nécessité la wala boog en tout cas baax na lool wala jaru ko boo gisee xale yi laaj loolu waxuñ ko ci seen introduction mais tasawuf comme wax naa ne ndéem wér na doomu lislaam la lu dal lislaam rek dina ko dal te lislaam la muy leer leer am na ñu ne caaxaan la am na ñu ne ku ca nekk réactionnaire la am na ñu ne ay naxe la am na ñu ne opium peuple la moog yeneen diine yi am na ñu ne yërmbaane yàlla la am na ñu ne mooy yoon wu wér wa am na ne mooy mooy quintessence lu yàlla mos a yebal ci ay diine ñu ngi ci kon nag kon nag tasawuf itam xëy na bu ñu dégloo ku ne dina am ñu ko ŋàññi am na ko ŋàññi lool dina am ñu ko tagg am na ñu ko tagg lool kon nag laaj bi mënuñ ko tontu tontu bu gaaw pour ragal confusion kon nag ngeen ne nécessité la wala déet nañ denc ci tontu li ba ci kanam tuuti li ñuy tuddee yépp soufisme walla tasawuf te du tasawufu l'islam itteelu ma ci waxtaan wi te pourtant occidentaux yooyu président doon junj léegi ak ñu bari ci orientaliste yi du ñëpp ak ñu bari ci seeni taalibe mais du ñëpp seeni taalibe même ay jullit am na nu ñu gisee mystique musulman wala soufisme nu ñaawa ñaawa ñaaw sauf kenn ku honnête mës na maa waxtaan ak moom mu wax ma wax mu yàq ma jéem a defar mu wejj ma jéem a saxal mu indi texte ma indi texte ba mu yàgg ma ne xaaral ma wax la suma dëkk université ba ma doon préparé suma thèse ba ci réew sàngam muy dëkku tubaab bu siiw su ma jaaroon fii nga wax dañ may collé du ma jaar sikkal yi ma sikkal yépp gaañi ak ñenn ñi ma xas ñépp maa ngi lay waatal ne am diplôme rek laa ci jublu woon xam nga lii lu triste la waay mais nag am na tax na ba léegi ñu bëree ngi wax seen thèse ba jàll dem defaraat ko door koo édité ñooñu nag ñoo ne soufisme indu am na wala indu kii safa suuf ñu ne soufisme chrétien am na ñu ne soufisme Euh, judaïsme am na lu ne ñu tuddal ko askan ko pour jaxase quartier ba am na ñoo xam ne même ci suñu mbokki jullit ñi bind am na ñu ne tasawuful islaam yi cosaanoowul ci alquran ak sunna comme ni ñu koy prétendre ñoom ñi ko gëm ñi ko gëm mais ña ngi ko jëg ña ko jëggee ci yeneen source yoo xam ne du source islam ña koy wax ñu ci bari am nañ honnêteté intellectuelle mais nak ñu ci bari ci armée bi nga xamne ne dañ bugg jax ci carte yi pour julit bu am mukk authenticité lool yépp nak bankas yoy yépp nak lam doon mëna amé nañ ko doon mëna a leeralee ci salle bu melni moy programme bo xamne bu commencé octobre day dem ba wetu juin ñuy wax nit ñi comme ni ñu leen di ci économie di leen ko waxé ci sociologie ainsi de suite ainsi de suite ñu boole ci ci pensée islamique exactement lan mooy soufisme fu mu jógee kañ la sosu fu ñu tëggee baat bi ñan ñoo ko développé lan mooy seen seen seen seen i lan lañ sukkandikoo lan mooy seen i école luñ ci war a dëgëral luñ ci war a wàññi ainsi de suite kooku programme universitaire buy dem dem am na fu bare xëy na am na fii sax maa ko maa ko maa ko kon nag tasawuf islaam yi rek bi ngeen laajte moom rek rek moom itteel ci waxtaan wi muy cercle bi ñëw cercle islaam ëpp ko mu nekk ci biiram tariqa door a nekk ci biiram nga xam ne kii xeex lislaam bu tojoon lislaam rek cercle boobu itam toj parce que mënu faa nekk tax na ba ni ngeen ko laajtee taxoon na mu wóor ma ne su ma ñëwee du ma fi fekk rek kuy wax naan étudiant taalube bàyyi la wala taalube bàyyi la tout court étudiant mais xamoon naa ni sujet bi ñëpp la intéressé parce que l'islam tasawuf buñ fa jógee kay lañ naan kii tariqa jiw kii tariqa jiw mais mystique musulman moom suluuk la boo xam ne képp ku am sëriñ mbaa nga am taalube wala nga am tariqa ak lu mën di mel rek intéressé na la te yéen a bokk camp boobu moom kon nag luy tasawuf ak kuy suufi muslim ولا كوي مسلم صوفي بنادي موي تانديكو سيجي ييغا خامني دا فاي اندي ورانتي باس باس مي هورزمان دو ني ماكوي نيوي لاج نانيو لان مو اندي لي ني واخ تصوف بل ما نيو سي باد بي باسكو لي وير موي لب لو خامني دين لا su fekkee ne ko ci alquran jëlewuñu ko ci yonent bi sunnaam sunna mooy lan lu mu wax wala lu mu def wala lu mu toléré ñu def ko ci kanamam tam yëg ko bu jógewul ci alxuraan jógewul ci sunna nekkul consensus bu ulamaawul ummati waxuma xaw xaaw yi dajeer dafay doon loo xam ne lu taq suuf la lu mëta moytandiku la moo tax nga daan dégg bàyyi ñees ridwanullahi alayhi julli jumaa gum julli خطبه قم خطبه دي شانجي سيجي ليك ليك اجلا ليك ليك جولي لا ليك ليك كور لا ليك ليك اسكا لا رارما ليك ليك بغنت تي الله لا ليك ليك ليك ليك بغ يونت لا ليك ليك او فراترنتي مسلمان لا مي نا امول تي بن خطبه بو خامني دو اندي تي بو تي كومانسي ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بضعه ضلاله وكل ضلاله في النار amul benn ajjuma bu ngeen ko déggul bu amee ku ko weddi na ma ko wax ñëpp dégg ngeen ko ci moom loolu teg mu tegtale mooy diine kenn mënu cee nekk plus royaliste que le roi li yónnent wax la li yàlla wax la li ulama yi dégg problème ba nag fa juddoo mooy bidaa moomu moomu moomu nga xam ne léppam musiba la léppam dafa ñuul léppam dafa lëndëm mooy yoonu safara mooy musiba bidaa moomu dafa naqaree xàmme sunna moomu ñépp bugg nga xam ne mooy yoonu aljanna mooy ngërmaane yàlla sunna moomu léeg-léeg nga dajeeg moom doo ko xam léeg-léeg nga teg ko lu doonul d'où la nécessité de se référer aux oulémas loolu la ma bàyyi daan wax nee na am na sëriñ bu ñu naan Ahmad Tijaani radiallahu anhu nee na lu ma wax peese leen ko ci alxuraan ak sunna mu ne problème ba de mooy poids yëpp ndax am nga ko ndax wax juy peese cinq kilos nga am cinq kilos mën nga ko peese mais boo amee balance su cinq kilos am wax juy peese cent kilos noo koy peese yëpp ay waxin la rek pour inciter nit ñi ñu jéem a gëstu jéem a xam jéem a laajte liñ xamul jéem a muñe wax ci luñ xamul moo tax tasawuful islaam yi mooy sóobu boobu ñuy wax ci léegi duma ko définir ci waxi ulamaawu jamono ji parce que université laa nekk damay jéem a remonter ba source yi gën a jege jamono yonent lu mu gën a jege rek moo ma gënal ñooña luñ déggee woon tasawuf ak façon jaamu yàlla boobu ñuy wax affaire sufiyaan ki nuñ ko déggee woon suñ ko déggee foofu maa ngi ci yem référence la ku nekk mën nga ko analyser ñu seet ba xam nag gannaaw gi lu jëf dinañ xam ndax dafa ko niru fekk muy moom ou dafa ko niru niru lu fekk du moom su boobaa nag attitude bi nga xam ne moom lañ war a jël jarut ma ci sori léegi ndax ku nekk yaa koy wax sa bopp lislaam ni bàyyu mboolem lu yëngatu ci biiram te wér am na ñu ne jullit laa te fekk seen wax auzu billah seen jëf auzu billah naka ngay def su boobaa da nga naan lislaam auzu billah wala da nga naan waaje auzu billah waaje auzu billah méthode bi gën wér itam mooy bu waaj benn waay ne bëcc gafakaam ci pénc mi ne la man suufii la wala sax mu gën a wàcc ba ci tariqa bi ne man tijaani la man murid la man chazuli la man xaadiru la ainsi de suite darxaawi la naqshabandi la fu yow da am na doctrine ana la moom ak doctrine ba nu mel su fekkee ne doctrine bu naan njàpp lu tooy dëkk ci jumaa la te moom muy tiim ak a julli na nga ko dëkkale ci fam oote kemb ni mu mel moom su dëngee nag nga jëm ko kondam condamné moom te bàyyi loolee muy woote te nekku ca su fekkoon ne jullit boo dajeel ci benn bistro muy tërëf nga ne lislaam ma bon boobu méthode kenn du ko nangu naka noonu du ma défendre mukk nit kuy caaxaan mais nag i faut ñu xam ne ku ne manqué te ne ca ak ku ne manqué te nekkoo ca boone ne manqué te nekkoo ca lutax leg leg dañ la fay yebal ngir nga takal ko suuf amna ci l'islam bu yàgg yàgg yàgg yàgg amna na sax ci christianisme mais tok ma jóg tey boone ne manqué fekk nekkoo ca wante ken ebalu ca ko itam xeyna tayal wala ñak xam wala fitna lu mun di doon daal ñu xamé comme li sinna ibn abi talib waxoon taarifu rijala bil xaqi lal xaqa bir rijal taarifu rijala lal xaqa bir rijaal taarif il xaqa taarif ahlahu mu ne da góor góorgóorlu rek ba xàmme luy couleur weex lu weexati rek nga xam ko boo fexee ba xàmme dëgg góor ku ci ne nga xam ko mais bu fekkee doo xam dëgg mukk lu may bu ko nit représenté da nga dajee ku représenté dëgg mais danga nga dajee ku représenté caaxaan ci turu dëgg su boobaa dafay sànku sànk la te ku sànku ci caaxaan mën na amu dellu si mais ku sànku ci turu dëgg du dellu si ndax dafay jàpp ne ci dëgg la nekk mooy auzu billah aaya bu raglu bi nga xam ne saalixiin yi ku ko jàng ñaar doo neew guddi mooy bi yàlla naan ladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaa ñi nga xam ne dañu sanku sanku sanku ndax ñu ngay kër këri ci baatil te jàpp ne ci dëgg lañ nekk yooyu moom lay duggee ci waxtaan ndaxte alquran ak sunna mooy diine ak dégg gu ca jógee dama koy répété ngir ca kanam ngeen koy xam ci pour Seydina Ali ibn Abi Talib wala kenn ci alul bayt am na benn yahudi bu ko cax ne ko waaw yéen alu yéen alul bayt xaw ma sax alu Muhammad la ko wax comme yéen ak moom a bokk famille yéen jege pays bi est-ce que beral na leen dara ci diine loo xam ne yéen rek ko moom mu ne ko déedéet téere yàlla bi la ak sunna si yonentam bi aw fahman utiyahu rajulun muslim wala nag dégg gu yàlla may ab julit dégg dégg gu yàlla may ab julit nag moom moo tax nit ñi góorgóorlu di ut ku jàpp ci seen loxo coow li coow li coow li loolu la suñu demoon nag ba war a fas géew boo xam ne bu ñuy gëstu doctrine ba doo ca bàyyi xel alquran ak sunna bu ñuy gëstu sëriñ ba doo ko fekk ci trace alquran ak sunna wallahi ma dem soraano te bañ a ñëw ma dem Sorano te bañ a ñëw ñu ne kon nag yaane lu alquran waxul sunna waxu ko buñ ko askanee ci diine dafay taq suuf ci li gën a bari waa ana nag fan la yonent bi nekk woon sufiyanke ak Aboubacar ak Omar ba ci saaba yeeg tabiina yi est ce que loolu amoon na fa su fa amoon kon ñu ne nécessité la su ci amutoon pourquoi mu am gannaaw gi foofu nag lañ war a dégloo xam-xam mu wax ñu laaj xel ak ñaan yàlla mu woon ñu dëgg gis naa ne soo ma laajee laaj googu damay essayer laaj googu daf may fàttali mel ni ku dem ci dem ba bàyyi ak seen maam ak seen maam Sall mus ñoo pikiru lu leen xiir ci musiba mi xam nga réponse bi mooy buñ la mu neex dañ la naan su ma bàyyi pikiruwul ndax feebarul su ma maam amul épidémie bii ci jamonoom nit du faju feebar bu ko dalul man nag dañoo wax ne épidémie am na ñu ne koy faj garab yi expérimenté nañ ko moo tax ma di ko jël loolu loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy salafiyu boo xam ne dafa gëmum salaf ak la ñu nekkoon ci aqida bu wér ak suul suluk mu ragal biddaa yu bëri yi ci jamonoom di dem bay sikkal nag lu jar te sikkal tasawuf itam nag ñi nga xam ne ñëpp ci ay matu yi nga xam ne boole nañ ko ci tarbiya dañu wax ne yónent ak saanu ci jaamu yàlla farata jaamu yàlla naafila jaamu yàlla yaram jaamu yàlla xel jaamu yàlla alal ak jihaad ak fuglu yàlla ak bugg yàlla ak wéttalikoo ko ak ragal ko ak yaakaar ko moom kenn képp ragal ko moom kenn képp di ut ngërëmam di di di di nokki nokki koo xam ne xam nga nokki kado la di bàyyi xel xaal buñ nekk mun caa dajeeg yàlla duñ ragal a dee duñ bëgg a dee mais duñ ragal a dee seen situation boobu seen xudur boobu seen shuhud boobu jarutoon ñuy organiser lu ñuy wax tasawuf ak ay séance zikkar ak dimbalante ci yàlla ci domaine boobu ndax lañ nekk ñoom ba mu demee ba xaw a woyof ci xoli nit ñi moom lañ doon jéem a rattrapé moo indi yu bees yooyu kon nag bul wax nit ne ko bul naan aspirine ndax sa bàyyi naanu ko laajal ndax bàyyam feebaroon na te bañ koo naan nga door a seet noo leen di comparer mais bul wax nit ne ko bul faju parce que fajuwuma c'est parce que feebaroo xëy na moo tax fajuwoo même tariqa yi ak awraad yi ak tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak wéet di ko xalaat lu mu baax baax baax koo xam ne yàlla mayoon na la set soxlawoo ko mais santal yàlla mais nag su ma wóoree ni man su ma kër këriwul guddeeg bëccëg yokk ci seen mi na dul jëti ni ko xadis bi waxee dal di fuuti bàyyi ma ma jéem a mucc sëriñ asan Cissé wax na ma ne maamam Cheikh Ibrahim Niass déglu leen bu baax a baax a baax a baax Cheikh Ibrahim mi may waxtaanee mooy mu alxuraan ak sunna ak bëgg yàlla ba jeex ci yàlla moom lay waxtaanee déglu kooku nag nee na ci lal bi mu faatoo ca Londres li mu mujj discuter moom affaire riba la ak intérêt bancaire ñu cay wax ak musiba yi riba jur ci àddina ak ak xaraam gu bon gim xaraam ak banque yi tas gi ñu tas réew yi ci turu riba ak intérêt ak non accumulé ak forme sàcc bi ñu ciy def doom doomu aadama yi dañ ci doon waxtaan di fàttaliku riba ba yàlla ne ku bàyyiwul riba déclaré naa la guerre ñu di ci waxtaan nag ci sunna ba sidna Omar la mu doon wax de waaye fàtte naa laaj yonent mu préciser ma riba ba ma dolli koo xam pour wane rek ne ma sël doon ko xam xam nga lu bàyyi conclure day doom boo xamoon ni mu ci jafe ni mu ci jafe kooku xol bu xam yàlla ragal ko noonu lay waxee mucc dafa jafe diine du fo diine du fo mu ne ko ay doom boo xamoon ni mucc jafe xam naa xaritam bu baax a baax a baax bu dëkkoon Makka gaañu na atum lëmm sëriñ bi géwantu ko fekk ñu ngi ci aj seen mu ne ma ah, ibrahim de suma xol dal na tey diw ba mu gaañoo ba tey damaa jaaxle ci mbiram ndax banque yi ci réew mi yëpp daanaka moo ko fi indi bu ñu wax ne da nit mun na réew mi dox te duñ gaañ kenn ko defee loolu laa leen wax ne cheikh moom li doon jàngale mooy teewlu googu lu ñu yaree nit la loolu nag laa ne bu njëkk lu simple la woon ci temps saaba ak tabiina ñu ubbi réew yi maas ki yun cal Muhammad yaraloon boppam pendant vingt mel ni asamaan amul liggéey lu may suuf ngolob ndaw si lay fini yàlla lay gàgganti alquran ba am na bés sax ñu ne yonent bi alei salatu wasalaam dàllam taq na sobe yàlla yebal jibril xuma fu mu jógee ñoo ne ko sa dàll yi dafa taq sobe donc lim ñu indil yàllaa ko maanaam leela waxoon Moussa wastanatuka li nafsi yàllaa ko choisiral boppam sàmm ko ba mbir ma pare mu ne allez si mbir maa ngi noonu nag al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diinan yonent boobu nag ñoom noonu lañ meloon amutoon problème biñ demee nag ba tasaaroo nit ñi dugg ci lislaam yoo xam ne fekkeewuñ éducation boobu amuñ may yooyu takat sosunu ko kenn ci saaba yi moo ne maa farar naa من مواراة جثمان رسول الله ولا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا pour wane présence yonent bi ak par temps présence képp ku nekk waaris muhammad yi am xam-xam am tawfiq am hidaaya présence physique am rek daf leen doon jëriñ mu ne bi ñu làkk pare ci suul suul yonent bi rek fakk nañ suñu xol yi dèjà am na lu ñu gaar soppeeku nañ dèjà soppeeku gi di dem ndànk ndànk si naal yu ibn abi ka tabax mu soppeeku gi gaaw na ñu ne ko lu xew mu ne xam ngeen ne fii buñ julliyaan fajar kenn du yàkkamti dem fii la ñuy ba jant bi waaj a fenk wala mu fenk te dañ daan tudd yàlla di jaayu ba mel ni garab goo xam ne ngelaw moo riddi muy jaayu mooy li gaa yi tuddee tawaaju loolu xam ngeen ne fa sunna gën a xóotee disparaître na fa ñuy ñuy soppi ndànk ndànk nag ba ñu dem foog pexe am tasawuf amutoon ulama yee wax ne tasawuf amutoon ci tur mais amoon na ci xaqiqa su fekkee ne mooy bëgg yàlla fuuglu ko di ko tudd di ko tawaadoo di bëgg ngir moom di bañ ngir moom man appliqué l'islam ci maqaamul ixsaan ndaxte diine benn bés yàlla yebal na jibril alayhi mu mu mu déguisé nekk nit ci xadis ji ngeen xam ba mu ñëwee mel ni kaw kaw buy tukki ba yegg si waaye melul ni kaw kaw yi daan mel ndax fëndut yéen a nga ni ko wax ma luy lislaam mu ne ko mooy nangam mu ne ko waaw mu ne ko wax nga dëgg saabi ne ah ku xamul bay laaj te bu ñu waxee ngeen wax nga dëgg fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu mu ne ko luy liimaan mu ne ko mooy nangam mu ne ko wax nga dëgg luy lixsaan nag mu ne ko lixsaan nag mooy mooy nga yegg ci jaamu yàlla an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu qu'importe fa innahu yaraak mu ne ko ixsaan mooy nga yegg ci teewlu yàlla ak muraaxaba ak sellal ba nga xam ne ni ngay ni ngay sellalee jaamu gi faale woo ma gërëm na ci mbaam ma gis la dafa mel ni da ko doon def ci kanam yàlla janoog yàlla mu ne te kat daanaka ñooyam ndax boo ko gisul yow itam moom mi ngi lay gis kilifa goo xam ne boo ko gisee ragal ko bu la wëri ni mi ngi lay gis itam ragal ko waxuma ragal ko rek yaakaar ko fonk ko loolu ñu ne nag li ñuy wax tasawuf ci définition bi nga xam ne moom lañ mujj retenir mooy maqaamul ihsaan mais nag du loolu rek la nit ñi wax nañ seet kon nag nam sosoo naturellement ñu ne sax par malheur mujj nañ dem ba mu am tur te fu bëri amu fa xaqiqa donc amoon na xaqiqa te amul tur mujj gi mu am tur te fu bëri amu fa xaqiqa mel ni ci misaal su fekkoon ne benn waay bu am alal dafa créé benn cité def fa ay néeg dëkkal fa ay nit ñuy jàng te duñ fay di lekk te duñ fay di faju te duñ fay waaye nag cité bi amul tur ñu dem ba jamono yàgg am kenn ku defar ab citéem tuddee ko maljaul muxtaajin fii ñi amul pexe di nekk waaye moom ku fa dugg doo lekk wala boo lekkee fay ku fa dugg doo jàng wala boo jàngee fay ku fa dugg doo faj wala boo dugg boo fajoo fay xam nga ne cité bee amutoon tur waaye moo doon la ñuy wax cité bii am tur xam nga ne du lu ñuy wax am na ci li ñuy wax soufisme musulman kon nag dafa mel ni li ma bëgg a wax étudiants yi mooy tur yi ak baat yi ak mustalahaat yi ak leksi yi am na solo amul solo ci kaw bu fekkee ne refléter la ndaxte may waaja nit dana ko fekk mooy waaja mais may waaja kenn dina ko fekk du waaja nit dana ne maay waaja fekk du waaja te sax du tappalekat dafa foog ne mooy waaja am na góor gu baax ci benn village dem na ba xaal jàpp ko mu ne nii ku jaarul ci sama tënqal yi doon naan ci yàlla fekk nit ñaa ngi naan taxawuñ nga <laughs> da nag bokkut ak bokkut ak nag su ko su ko waxoon su ko waxoon fekk tappale da ci jublu dégg léegi bismillah kon nag sosu sosu soufisme sosu soufisme kon xam ngeen ne du sosu bu ndajale kaa ñu créer soufisme amul situation ba fa nekkoon moom lañ doon jéem a imiter te mbir moo bëgg a toppatoo war koo régler war koo fonk war caa sax foog mu am règle foog mu am ay jamono foog mu am lim bu réussir itam foog mu am ñu ko jéem a imité pour yeneen cause yu bokkut ak yi la taxoon nga jóg yow qu'importe dëgg dana fi nekk lu dul dëgg nekk fi loolu euh, li koy xam ko mel noonu ñu ne buñ ne ak suufi yu ci luñ koy askan c'est relatif à quoi ndax suuf mi nga xam ne mooy leen mais leen bu ñagas yonent Yàlla Isa ak xawaari yi ne yeeg euh, nit ñi ñagas ñagasu daan sol maanaam euh, malaan moo xam ne ràbb nañ ko ci leen kawari xar yi mu ñagas lool mais du gaaw a xottee ko ñu ne mi ngi jógee ci suffa mooy ahlu suffa cercle booba nekkoon ci pegg jàkk yonent ba ñu gën a ñàkk ci saaba yi te décidé pour jàngal islam jaamu yàlla toxal hët yu nabi yóbbu ko ci nit ñi duñ tardé benn séance ku fi nekkoon ñoo lay communiqué li fi nekkoon ahlu sufa te yàlla ne leen wasbir nafsaka yonent bi maa alladina yaduuna rabbahum bilgadaati wal ashi yuriduna wajhahu di ko wax ne na nga gas sa bopp ànd ak ñii nga xam ne subaak ngoon ñi ngi tudd yàlla di ko sàbbaal di ko ñaan te jubluwuñ ci lu may jëmmi yàlla ja nga xam ne daanaka mooy base tarbiya ruuxiya ñooñu ndaxte suufa la suuf yi ci suufa la ñu dee kon nañu wax suuf fii yun waaye du yox suufiyun sifatu ñu ne gaa ñi yépp ku ne suufi jullit bu wér nga te tasifu bi maxasin axlaaq wa tatabarraw min masawiha kon nag comme da ngay meloo melo yu baax yi di daw yu bon yi kon xëy na biñ na suufi ci sifa la jógee sifa mooy melo ñu ne déedéet na kon tam sifi yu wax ñu ne kon ci suufa ni nga xamee ne as boo jëloon as as as njum maanaam boo boo boo sompoon dara as piis wala as koto euh, na muy nangoo nga somp ko nga sànni mu nangu nga sànni ko nga bàyyi mu nekk fa lu googu suuf yi noonu la mel digganteem ak yàlla ndax suuf fiyu la ñu ne déedéet li wér daal mooy suuf yu daal la mu gën a jege ñu ne daal mooy dëgg-dëgg comme jamono jooju ñu bari dañ daan sol malaan yu suuf ngir gaaw te xart dafa ñagas te amul bëgg àddina xëy na loolu la waaye nag daan na am ñu nekk ci xaal boobu te duñ ko sol te itam saaba yi bëri woon luñ koy sol kaay nag ñu laaj benn mu ëréx bu ñëpp xal duun xam bii ñuy wax soufisme wala tasawuf islami wala initiation wala wala yi ma waxoon yëpp nee na ci xam-xamu sharia al islamiya la bokk kooku c' est c' est un début de réponse pour yéen ibnu xaldun mi ñu ne moo sos science sociologie comme science tubaab yee ko wax na waxamtumaa nag mbokki araba bi nee na li ñuy wax tasawuf ci xam-xamu sharia yi yi nga xam ne gannaaw gi la feeñ ci diine ji nee na nag boo koy seet cosaanam da nga naan sëlëful ummati saaba yeeg taabiina yeeg taabii taabiina ñoom ci yoonu dëgg ak jub lañ nekkoon ndaxte mooy sax ci jaamu yàlla dogu jëm ci yàlla dëddu walis lu ëpp ci àddina tout ce qui est trop trop trop ci àddina ah luxe superflu ci àddina parce que buñ ne dëdd rek ci lislaam waxul nga dëdd doo naan waxul nga dëdd doo lekk waxul nga dëdd àddina doo nelaw wala doo solu mais nag boo mu ne sol mbub mu normal jarul ngay sol mbub mu ëpp ñu naan ooy parce que sax nga wax yonent ngi wax ne libaasu shuhrati mbub mu ñuy joxañ booy bu nga bàyyi nga mooy kon moo tax ñuy xeexanteeg fexeelanteeg complonte ku ne buggu plaisir bopp sa morom dara jot yëpp sa morom am dara sax doyu la mais danga koy bëgg a am te bu ko sa morom am xeex boobu waxsiyatu googu ma googu sauvagerie googu vraiment lu mu yàgg-yàgg dana mujj yàq aqidu diin parce que jullit jullitay moromam jullit jullitay mbokkam waxuma jullit rek mais l'islam dafa jàngal même ku dul jullit tey nit sax soo ko mënta jëriñ bu ko lor même kax bàyyi ma sax na nga ko teral même xar mi nga am droit pour rendi ko gannale ko say gan sax yonent nee na bul tëb rek di ko rendi comme kuy rendi lu amul yëg na nga ko jox mu naan nga noppal ko te paaka ba na ñaw ndax dee nga gaaw ma ne bu ñu demee nag ba ku nekk di xool sa moroom rek pour bundu xataal ko war nañ trouver solution ne nag jamonoy yonent bi mbir yi melu toon noonu ndax yëgoon ngeen ay nit ñoo xam ne jam nañ leen ci xeex ci benn guerre lillaahi teñ teñ mar ndox sa tuuti kuñ ko jox rek nga dégg sa morom bindi nga ne jox leen ko kookuy bindi xëy na maa ko tane ba ku mujj ka dee ka ca topp dee ba ñeen jàng soppeeku ginnaaw gi ba mu soppeekoo nag Ibnu Xaldun nee na jaamu yàlla nit ñi bëgg koo fàtte ku ci nekk grand place gënal la presque nga wéet pour xalaat yàlla te saabee sëlëf noonu lañ meloon mu ne ba loolu amee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bugg a des ca sëlëf nekkoon ñooñu ñu tuddee leen suufi kooku mooy version Ibnu Xaldun xam nga ne kon ci jamono jege na ndax juste après tabi'i tabi'i la rek taw hasan basri bi ngeen waxoon moom te kat li mu wax neex naa dëgëral parce que moom ni ko firé mooy dañ dem bay bëgg a yàqu ñu sàkk pexe et am na benn waay bu ñu wax abu abdullahi muhammad sadiq al gumaari waa misra la boo xam ne muhaddis bu mag la woon mi ngi dundoon Euh, mi ngi ñu nekk li waa ju dundoon ci ci quatrième siècle l'islam muy kindi ñi jàng araab ñu ci bari xam nañ ko ci téere bu mbindoon ci ñi mës a gouverner Misra ci atam deux cent ci hijra ma ci wa waxin boo xam ne xamee nañ ci ne nekk suufi yàgg na ndax dafa ne am na benn groupe benn mbooloo bu ñuy tuddee ci Alexandrie ak suufiya nañ leen di xàmmee mooy ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar booba tasawuf amul benn critère lu may gaañi ñu ne leen yeneen suuf yi foo leen dégg ñu ngay tegtale lu baax di tere lu bon te xam kooku principe la bon Mas'udi ku siiw la ci ñi bindi am na téere bu ñuy wax Muruuju Zahab li nekk li boo xam ne déglu ko surtout yow étudiant nee na taawu xalifa bi ñuy wax Maamun doomu Haroun Rachid Haroun Rachid Maamun dafa mos toog rek euh, bëkk néegam bi dal di ñëw Ali Ben Salih ñëw déy ko ne ko amil ah, amirul muminin am na ci buntu bi kat waajoo xam ne mi ngi sol yére yu weex yu ñagas nee na dafa bugg nga recevoir ko ndax dafa bugg a dialoguer ak yow ci diine ba mu ko waxee rek mu ne fa alimtu annahu min asuf innahu baadu suufiye ba mu joxe critères yi rek lam sol ak la ko tax a ñëw mu ne ma xam ne rek ci suufiye la bokk ñu xam ne ba tey ci buur ñaanoo ko alal ñaanoo ko mu dimbali la ci xeex xanaa nga ñëw pour wax ak moom janoo geeg moom ci diine ba xëy na ma ngi ci ay ay yu jubut pour nga wax ko ko boobu itam xam ne ba tey tasawuf ni ñu koy joxañee ba tey génnu la saaba ya nekkoon nañ ko topp nag e, wax nañ ne sax téere bi ñuy wax kashfu zunuun xaaji xalifa moo ko bind téere la boo xam ne bibliographie bu yaatoo ni moom ci lislaam atam cent cinquante ci gàddaay yonent bi xam nga kon teel na ku ñuy wax abu hajim suufi yooyu yëpp nag mat naa bàyyi xel ndax léeg-léeg nga daje ku ne na lii barki démb la xew ci Faas mbaa Bagdad ci ci xaadir yeeg tijaani fekk nag loolu yàkkamte la ci xam-xam xew na bu yàgg nag baax nag baaxul on verra mais xew na bu yàgg nag kon nag mbir yi nii la gannaaw yonent bi ñu bari dañu am tur yu bees ñi doon gëstu droit musulman ak li ci aju ñu ne fuqahaaw ñi daan gëstu xadis yi fu mu jógee fu mu jaar wér naa wérul ñu ne mu xaddisuuna gëstu film yi indi xad indi xadis ak fiq ba mu ñii ñu xamee leen ci naxu ñii ñu xamee ci balaaxa mu def nag ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo pour xol yi wér bëgg yàlla sax fàttaliku yàlla sax te mu doon lu wér te du wuuteeg sunna ñooñu nag ñu teew ñooñu ñoom itam ñu tudd leen zuhaat wala suufiya kon nag nga xam ne kon mën nañoo macha allah euh, mën nañu xam ne kon kooku mën nañ cee mën nañ cee dem ba ca kanam yooyu yëpp wane na ne du mbir mu bees bees bees bees mais tur yi ñoo bees te mbooleem fànn yi jamono yonent amutoon grammaire yi ndax grammaire amagul amutoon faqiihu ndax tuddaguñ leen yooyu yëpp nag nam sosoo noonu li ñuy wax tasawuf sosoo su fekkee nag lu sosu na baax dañ koy boole ci aqsaam yu baax yi bu dee bu sosu dëppwul ak dara ci li baaxoon yonent kooku nag mooy dalaal boo gisee ma ciy insister dafa di buntu xam-xam boo xam ne dafay noppal nit ko parce que ni bidaa bonee seetama rek ku mel ni mu ñu jot du ko pendant 50 ans bu tukkiwul nga dégg ko mu naan mooy tane ku leen kon ñu je crois que hiya bidaa wa maa hiya sunna wa maa hiya bidaatu dalaala bu ko defee bu ñu ko xàmmee ñu bàyyi ko ndax mbooleem ña xam ci seen kër bu ñuy ataaya ne safara sii kat li ma koy doyee mooy baxal ndox mi ataaya du tàcce sama loxo ndax boo juumee ba mu laal la ca tàng rek lakk gam lay lakk moo lay woon ne yow doo ko jox sa loxo bidaa yi noonu la mel amul benn jullit buy xam ne lii bidaa la bidaatu dalaa la muy dox di aventure di ca dugg ñàkk xam ñàkk xam wala ma nekkee bidaa mbir ma nekkatu biddaa foofu nag la suma xarit intellectuel bu jàng lool ca misra di wax ak kenn kuy woyofal mbir yi waa ji ne ko man lu yonent deful du ma ko def te lu la deful rek waxu ko rek biddaa la mu ne ko waaw mais nag da koo bëmbëstan ndax ma dégg la mu ne ko loo ma bëgg mu ne ko seetlu nga ne fauteuil bii nga toog muy cuir mën nga fee toog ba ngoon jot doo sonn tellement c'est luxueux est-ce que foog nga ne amoon na jamono yonent mu ne ko waa déedéet mu ko waa sa cravate gii nga xam ne barki démb nga ko jëndee Christian Dior ci Paris yonent doon la ko takk mu ne ko la yonent kay mu ne ko dé amul woon montor sax mu ne ko doo kon seetlu ne bidaa bi ñuy wax mooy mbirum jaamu yàlla muñ sos ngir jaamu yàlla te mu wuuteeg yonent def ak yàlla tegtale mais bu dee lu le lu baax kay bu xewutoon jamono yonent itam yonent indiwul ji pour bloquer développement de ji waaj mu fàttali ma mu fàttali ci end bi end, bi Indien Angleterre di woote am waaju baax kuy fanaan a julli mais déggut mu ne gaañe li ma jaaxal ci suñ jihaad bi de mooy bidaayee ma jaaxal ñu ne ko luy bidaay mu ne yonent bi mësul am fetal mësul am revolver mësul def embuscade yonent bi jaasi ak gunt la amee woon te ko gën a yeewu ci groupe bi te xam na muy waxeek moom sàpp sàpp ne ko wax nga dëgg sax waaye nag da ngaa déggut yonent jumtuwaayam daan xeexee moo yenoonam ya daan xeexee su nekkoon jamono ji itam dafay uti kanu uti mitrailleuse pour mun a jëflante lu am solo la ci diine ndax waaye ngay tere la ba nga xam ne su la rusutoon wala mu ragal nguur gi foo ne tëll rek mu toj sa kabaab bi jàpp ne ci bidaa nga nekk te kat bonut mais noonu la ko jàppee moom te bu ngeen waxtaanoon rek la olof di wax ñàkk waxtaan a am réeroo amul danay faral di am ci yooyu bu ngeen waxtaanoon mu xam ne ñàkk koo fayda bay nekk ci loo xam ne wóor na ne bidaa la nga di ci nekk waaye nag xëy na peut-être masalaam ak sa masala dañ ko confronté wul wala xëy na sax sa àllu sut àlluwaam te loolu am na Muhammadul Ghazali ku siiw la ci daawal islaamiya tey ci jamonoy Faruq ba léegi mi ngi xeex lu la def nañ ko ko ndee dafa doon expliquer benn masala ci sunna rek mu ne benn xale boo xam ne mi ngi waaj am diplôme bu njëkk ci université amul sa licence nee na bëti xale baa ngi xonk nee na ma ngi koy waaj a ngàdd ngir def ne rek sëriñ bi dafa fonk di sunna ak hadith ngir li muy expliquer moom mu bees moo muy jàng te xóotagul ci jàng jàpp na ne moo xam dëgg ga comme nag mag mii ak bédéwam bi moo fi fonk sunna ngadd ko rek lay def rasali mu ne ma ree rek xam ne il faut góorlu ci te fokk ñu yóndu li ma bëgg a wax kon nag baat bi fi mu jógee wax nañ ko ñu ne kon nag soufisme musulman wax may ca des donc tasawuf ak suufi lan mooy finalité am luy raayatuhu ñu ne raayatu suufi yi allah suufi li ko tax a jóg moom nee na mooy yàllaa ko tax a jóg moo tax sax seen woykat ba ne allaha qul wa zaril wujuda wa ma xawaa إن كنت مرتادا بلوغ كمالي لأن الله رك ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يوم لا يلا وخيون انتبه دوكو يفري لجلي دي اي صفصفة اني اي صفصفة لتخ امو خالصة لتخ يون انتبه ناكل برجوة تايفة لتخ لتخ لتخ نجي تك جبارك لتخ نجي لك لتخ نجي دم مارسي خمو يوي دبا موم لا يوي فو دبا yàlla nag ne ko nag qulillah summa zarhum fi xawdihim yalabuun neel allah rek bàyyi leen ñoom ñuy caaxaan kon nag gaayatu suufi ñu ne mooy allah mutasawif nag boo xam ne ba muhammad diw war a jëfandikoo bu ci mu nekk benn entité bu am maana am keneen koo xam ne yàlla tax koo jóg mais entité la soxla moom itam mu niru niru lu ko xam nga ne bokkuñ wóor na la ne laysati naaihatu ka sakla ku ku ku deele bay jooy ndaw su doomam dee arab nee na ba muy jooy bokkut ak pleurige boo xam ne dañu bugg dëj bu xumbu ñu fay ko ne ko kaay jooy ndax ñu xam ne kii dee foor la bokkuñ arab nee na laysati naaihatu ka sakla ki jëm ci yàlla ba am ñu ko ci fekk wéttali ñu ne am na mbooloo ñu ne am na barke jamono ju mu di doon xam ne bokk ak ke mbooloo moo ma neex mu créé moom mbooloo yàlla taxul mais am mbooloo tax lay sa ti naa ixatuka sakk la te yooyu yëpp nag am na ci taarix ba ci taarix bu mujj bi ñu ne suufi bon ñu ne suufi ku rëdd dara am nga moyen yoo bëgg a jaar pour yegg ca comme suuf dañu wax ne suuf bi ñu wax nun loolu ko taxoon a jóg ñoom dañu feebar yi tasawuf bëgg a faj faj ko ci nit fardu ay nit ñoom nag dañu am courage maslaa yi ñuy def ñun ñëpp ñoom fekku ci nee na feebar yi nga xam ne moom la ñaanu sëriñ si ak wirdu masaayix yi ak suluku suuf yi feebar yi mu faj ci nit nee na faj ko ci nit ku nekk fardu ayni la devoir personnel boo xam ne ku ne war nga koo fexe ku ne war ngaa fexe ba doo réeru ku ne war ngaa fexe ba doo ñaan ku ne war ngaa fexe ba doo yéem li ngay def xëy na fekk sax du dara ku ne war naa fexe ba ba àddina du la gënal yàlla كنا ورنا في خبر دو فات تدو يلا نخ موني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لأن يو جلد بي نخ في خبر بوي توف بول توف مكو خم نمان يلا دم قصير بلا مريت موي ما تخلم فات تدو ما من يلا فات لكما مفتوف باني خمرك سكنا بجل ديو مباي بكني ريو مريو بكني غاني المغاني لا إله waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla